je suis désormais le maire de la commune et non le maire d'une partie de la commune de Mao. je veux être je veux être le maire qui sera à égale distance de l'ensemble des quartiers que compose la commune de Mao. Je considère que être élu maire n'est pas un privilège, mais un sacerdoce. Comme une billette C'est pourquoi je tends la main à toutes les forces vives de la commune. Que am boolee sunu doole dañuy yóbbu commune de Mbao ci émergence benn millimètre carré benn millimètre carré soxlawuma ko boo xam ne askan wee ko moom et je vous prends à témoin yéen ñi fi nekk ñëpp je vous prends à témoin bu soobee yàlla dama bëgg bu ma defee cinq yi ma ñëw ba ci yéen ma ne leen lii la yàlla dogal lii laa liggéey ci kattanu yàlla nekkuma ci fayantoo nekkuma ci lool li ma nekk mooy inshaa allah buñ ma joxee le document de passation li ma fi fekk il faut ma xam lan la mais bu dégg Abdou Karim mu ngi xool maa ngi xool pour xam booy dugg ci néeg da ngay taal lamp bu baax nga xam fi ngay toog et képp ku am contrat di liggéey fii di nga xëy heure di nga wàcc heure jëmale wu ma ko ci ancienne équipe bi dama ko jëmale ci ñëpp képp koo xam ne bëgg nga liggéey ak man kàddu ku ko déggul na ngeen ko jottali je n'accepterai pas de travailler avec des gens ñi nga xam ne du ñu jox seen liggéey ak am alal bi alalu askan wi képp koo xam ne mooy ñi yore recouvrement muy ñi nga xam ne xaalis day jaar ci seeni loxo képp koo xam ne boo jëlee dërëm mbaaw billaahi di nga ko digaat man <laughs>